mbokki jullit yi mbokki taalibe yi bu ma sante yàlla julli ci yonante ba di sante Serigne Touba ak Cheikh Ibra man la Cheikh tiam ambassadeur kaddu yuma fasiyene yekeuti kaddu njëgal la ma fasiyene yéene sama mbokki mouride yi ak fuñu ñu mënti ci aduna bi di jéggalu sama mbokki mouride yi nek bir Touba ak sama mbokki bop lepp lu ma sa wax mu nakari kenn ci nyerek senegal ci julit ñi rek ma ngi la koy jéggalu ci barke borom bi ci barke wéru koru mag wi ma ngi len di ñaan ngeen ma yeen ñepp njëgal li nag dama koy teg ci loxob sama sëriñ bi ma sukk jébalu muy sëriñ Abo Mbakkeem sëriñ du Fata mu teg ko ci loxo waajuram mu teg ko ci loxob xalif général de Mouride mii sëriñ Touba ci kaw suuf yal na yàlla guddal fanam te wéral ko maa ngi jégalu ñëpp gépp kuréel guy dox ci luy nuroog luy sàmm ndonal mag ñi maa ngi lay jégalu te di la tàllal loxo commencé ko ci maam Cheikh Naam ay yes maa ngi leen di jégalu ngeen di ñaan képp ku bëgg jàpp ci njëgal li nga wasaareel ma sama vidéo bi ngir jëmmi borom Touba Mbacke touba la judo yoro fa luma am touba mako gënal luma am serigne touba mbacké mako gënal luma lima jotta am fala ko yobbu te luma amul subat fala ko yobbu kon maangi len di jéggelu maangi len di jéggelu une fois de plus maangi len di jéggelu jéggel len ma ta yalla bur bi rek tax jere ngeen jëf assalamu alaykum wa rahmatullah bakki khurasul irada ñi ngi nuyu ñepp tay ziyara ñepp di len ñaanal yalla sun borom nangul ñu sunu jaamu yalla nangul ñu sunu koor waaw vidéo bu mel lu mel nii moom laay moom laay doon wax xam nga mbir yi yu nu lu nu nas la dañ koo nos ndax moom ci jéggalu démb ba nga xam ne boobu amagul vingt quatre heures booba wax na ci vingt quatre minutes trente huit secondes vingt quatre minutes trente huit secondes lim ci jot a wax ak néew lu jëm ci jéggu jéggulu sept secondes la ci sept secondes mais la mu doon wax rek ko ci doon répété waat ci biir manam pour wan leen yëf lu nos la te ci yóbbu boobu ba mu koy tambali dani ñom taala jaxate ak samay mbokk ak samay xarit ñom ñoo dajalo wax def affaire bi ba nopi woo ma ca veye ba ni ma na def loolu ma nangul len ko ba nopi xam la nit am na lu tax kon lolu ben la ci bi ci des mo ni bi bii ginnaw gi lan ko lo wat li encore ndax am na ñu mu tudd ñoo xam ne sii man ñoo ñu jokkoo naa ci ak ñoom de joxante nañ ci ay xalaat nga xam ne lu lu nos la dañ ko ko wax loo waat nga xam ne yëf yi nekkul lu lu mu lu mu bëggaloon boppam directement déedéet dañ ko koo sant te li tax ñu sant ko ko am na lu tax donc loolu nañ ko bàyyi xel bu baax a baax jéggal gi moom démb man sama audio yi ma nekkoon def dama ne woon jéggale naan loolu moom ku ne ndax ab jullit bu la di jéggalu da nga koy jéggalu waye ba defate defaatee ne dama ni nak man dama teel a te ki doon jéggalu jéggaloogul cheikh ni ki doora a ni nii teewul lépp nag am lu lu lalu ci bir ndax bëgg na ñëw Sénégal amna na lu mu fi bëgg te mënta ñëw Sénégal ci nonu ndax limu mu wax ci wax ju ñaaw ak wax ju bari dafa teel manam nga ñëw rek jéggul rek te tegal ñu proposition indi ñu ni da nga am lo bëgg indi da nga jéggul da nga tok déglu ndax lolu yag na ci l'islam lenn ci saxaaba yi am na ci ñoo xam ba duggee ci lislaam dañ ni tekk ba ba ndam yi leen fi fekk fekk leen ci waaye dugguñ ci lislaam di ñëw damay dugg ci lislaam waaye su ma duggee nag damay def nangam wala damay doon nangam politique ko tax a jóg kii dafay politique ku mu ku muy politiqueal boppam lay politiqueal wala am na ñu ne ci ginnaawam loolu moom amul sikk sàkk bu ñëwee loolu dina leer vidéo bii dañ ko koo sant ni ko na ko defaat kii dañ koo yàgg a ay at ñi ngi koy topp lépp lu mu def ci ay jéegam lu ci dañ koy topp waaw ñu bàyyi ko xel bu baax a baax tuub na jéggalu na jéggal nañ ko waaye nag danaan tekk tuub ak jéggul nag tekkiwul ni nag damay ñëw di def nangam ak damay def nangam ak gone tuubaay damay nekk seen leader ak yu ndax gone tuubaay yi nit moom ñoom nee moo nekk seen leader gone tuubaay yi démb ba tey ñu ngi ci groupe bi di wax ak di wax ay wax yu lu ne ñu ko ko yekk ah loolu nañ ko bàyyi xel bu baax. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Ah, sama sëriñ sëriñ Alioune Badara Wade maa ngi lay niw maa ngi nuyu sëriñ Mouhamadou Habib Diakhaté maa ngi nuyu mboolem ñu nekk ci mbooloo mi maa ngi nuyu Moustapha Diouf ma fekk ci bunt bi maa ngi nuyu sëñ El ak mboolem ku dégg nekk ci mbooloo mi ah El Hadji Diagne Cheikh Thiam de Cheikh Thiam li tax ma ne la mooy ba muy jógee Sénégal tuddul ambassadeur. ba mu demee ba Amérique la tudd ambassadeur ambassadeur lu mu doonoon ah, ambassadeur gi ci lan la ko doon présenté woo bu bàyyee loola daa war a daa war a bàyyi waale ambassadeur ga tamit ndax ambassadeur u xas mag ñi ambassadeur u tànc mag ñi ambassadeur u contre mag ñi ambassadeur u ne mag ñi dañuy naxe ambassadeur u ne gone yi maa leen di taxawal maa leen di yee maa leen représenté waaw ambassadeur u tàññaate kay soo soo demee di tàññ nit ñi ba dee may ambassadeur bi nga xam ne tàññaate xasaate donc moom mooy sama métier boo demee ba tuub tàñña xas da ngay bàyyi waale ambassadeur ga bañiti ko wax Cheikh demal seeti beneen àddakental te bul waxati ambassadeur boo waxee ambassadeur rek tuubagoo ambassadeur gi moom li ñu ko doon présenté bu njëkk baaxul waaw ginnaaw li ñu ko doon présenté bu njëkk nag baaxul soo demee ba dug ba ba ba tuub da ngay bàyyi nag ambassadeur gi nga seet beneen tur waaye wi nga ambassadeur moom li ñu la ci xamaloon dara baaxu ci te fekk yaa ngi wax ambassadeur ah man de d'accord ma ci ne tuub nga ku tuub da ngay toxu yaa yokkaloon sa bopp saw bala sa baay tuddee Cheikh Thiam yaa ci yokkoon ambassadeur waaye du caage nag ne waa Sénégal ñoo àndoon da ne la ambassadeur nga déedéet du caage nag waa Touba ñoo daje woon ne la ambassadeur nga yow yaa faraloon sa bopp sa ambassadeur u bopp te ambassadeur u xaste ak saagawaate ak ŋàññe ak tàncaate nga doon def li tax nga mën a am mbooloo mu ne ci biir Touba di la xaar ne boo ñëwee nga nekk suñu leader te yow chiar ba nga xam bañ la xame woon muy mandarga ma nga amoon ba ngay nekk ca lu mbon la ba nga ñëwee ci lu baax la da nga koy indaale kon du ji moom da nga koy génne ci sa ci sa tur ndax ambassadeur ji bi nga ko bi ñu koy présenté da ñu ko présenté ci kaw ne may ambassadeur yu ñëpp ñi nga xam ne dañoo yor ay sant yu tuuti dañ leen di nax dañ leen di am dañ leen di manipuler dañ leen di ay wuy waye lañu nit ñu amul ay xel lañu ay kulbani lañu maay seen ambassade bay kaasal leen boo demee ba kaas boobu nga démissionné ci kay yow ba cal dak sa ambassade ji ambassade ji moom Cheikh da nga koy wàcc waaw ah, wàcc ko fële ba noppi waaye tur wa nga yoroon ba nga xas di ñu tànc di ñu saaga di ñu wax lu la neex nga dikk ne tuubal naa indi tur woowu moom du mën a nekk da ngay bàyyi ji fële waaw da ngay bàyyi ambassade ji fële bu ko booleeti ki sa tur ndax fekk yaa ngi wax seex Thiam ambassadeur nit ñi seen xel dañuy dem ci li nga doon wax emal ci Cheikh Thiam comme na nga ba ngay dem Amérique te tuddoo ambassadeur ambassadeur ji moom yaa ngi ko tuddewoon sa bopp ci kaw xas Serigne Touba ŋàññi Serigne Touba ŋàññi doomi Serigne Touba ŋàññi sëti Serigne Touba jiima xeex Serigne Touba di jiima xeex yoonu murit ci loolu nga tuddewoon ambassadeur kon boo tuubee amba ambassadeur amba ambassadeur Cheikh amba ambassadeur amba ambassadeur yaa ngi dégg ambassadeur ji moom danga koy bay fële waaw te nga liggéeyal nag Sëriñ Tuubaa loo man ba ba Sëriñ Tuubaa gërëmal la boppam defal la boppam ab ambassadeur ndax yow mënoo nekk ambassadeur Sëriñ Tuubaa ambassadeur yi ñi contrôle Sëriñ moom nga kon soo tuubee kay Cheikh bàyyi ambassadeur ji nag teg ko fële première tomb bi mooy koy njëkk a mooy ambassadeur ji muy tuddeewaat boppam te ci dóor doo ku ci dóor ko boppam bu gitu. njëkk ci dinaa la xamal ñaar nit saa yoo gisee muy wax ak yow nga ne ko jàkk ñaari bët yi benn bi ëpp morom ji nafiq la la wax du dëgg nit saa yoo ne ko jàkk muy wax te nga daan ko gis mu daan wax nga gis ko muy wax benn bët bi ëpp morom ji la mu bokkul ci biti na ngeen ko seetlu bu baax ay nit ñoo nekkoon Amérique di liggéey Serigne Touba te tuddewuñ seen bopp ambassadeur te kenn tuddewu leen ko sëñ Sambake Gaynde Fatma moo indi Bamba Day waaw moo indi Bamba Day ci Amérique sëñ Modou Moustapha Mbacke doomi Cheikh Gaynde Fatma moo njëkk woo Serigne Mourtala Mbacke yóbbu ko Amérique ca ba ñuy werante ca biir gouvernement américain yi di wax ne sëñ Touba dellusiwaatul àddina dañ ko fa sàkkal pexe yi mu ne ñu ñu ñu ne leen am na sëtam bu fi nekk daal di présenté Serigne Moustapha Mbacké mu ne leen ah déet am na keneen ku ma gën a jege am na doomam ju ju ju ne jonn dinaa ko fi indi maire wu New York la xaw ma maire dëkk ba mu njëkk a euh, Serigne Mourtada njëkk a dem ba mu fay dem Serigne Moustapha Mbacké moo ko fa yóbbu Serigne Moustapha Mbacké dem na ba ñibbisi liggéey fi lu toll ni Bamba day ñibbi Touba te kenn defu ko leader kenn jiitalu ko Cheikh Thiam bëgg a nekk bitim réew di saaga Sëñ di ko xas ba ñibbi suñu jiital ko yéen waa Tuubaa seen bopp yi xanaa amu ndox man man man dafa ñoo xam ne maanaam daf ma maanaam daal doy na war daal man daal ma noppi moo ma gënal wax waaw ma noppi moo ma gënal wax lan la Cheikh Thiam defal Sëñ Tuubaa ba bëgg a saxal ne ambassade la léegi ni ci yoonu Sëñ Tuubaa sëñ Amadou Dame Touré nga ca Italie moo jiite mboolem murid yi ca kër sëñ Tuubaa nga ca Italie liggéey bu nekk moo ngi ko fay def lu dul ambassadeur boo demee yaa ngi sa koroog bu waake ca ak fële fa ñoom fa ñoom sëñ Tuubaa nekk lañ fa liggéey sëñ Tuubaa kenn xamul lu muy yem tudd ñu ambassadeur dégg nga New York googe nga xam ne moo nekk ca Amérique murid ya fa nekk takku di liggéeyal sëñ Tuubaa lañ fay def ñëpp gis nañ ko tudd ñu ambassadeur kenn takkul leen ak ndombo Cheikh Thiam bëgg nekk Amérique di saaga sëñ Tuubaa dag gi koy saaga ñëpp di ko dégg di wax lu ko yàlla yore dem ba neex ba mu neex ko mu bëgg ñoo diw li njaag si xëpp ñu kaani fexe di tappale ba ñëw ne ba ñëw ba ñëw dikk dugg fexe ba dugg ci biir eh, doon doon kilifa amu amu baat amu ndombo loolu moom man de du ma ko fekkee man lu leer la leen di wax sa càmm moom bu dikkee daal na bokk ca ñey bale jumaa jë ak a lay na ca liggéey ba di furti furti ba am ngërëmal Sëriñ Tuubaa waaye nekk caale ba loolu sax ak ragal lay niru loolu loolu ñun dañ koo ragal laa yaakaar loolu buñ ko ji sax càmm buñ ko joxee baat ci biir Tuubaa muy am lu muy jiite ak ragal laa ko mën a teg bu dul ak ragal lan la nit ki mën naa jóge ci àll ba di mën naa nekk ci àll ba di la tagg saagay ndey di la xas di la wax lu ko yàlla yore ba mu neex ko mu dikk yéen ñi nekkoon Tuubaa di liggéeyal Serigne Tuubaa di gan ngar ngari guddi ak bëccëg soo demee villa yaa nga foofa di liggéey soo demee rawdu rayaadi rayaaxin da nga foofu di liggéey soo demee suñ am sa doomi suñ blaata ngi foofu di liggéey soo demee diw soo demee diw soo demee diw ñooñu ñëpp di ay doomi suñ Tuubaa di ay sëtam di ay taalibeem yu sellal si nag taalibe di liggéey liggéey bu kenn mënut a xebet si sëñ Abdou Amadou Faye yi ngi foofu ci Touba di jàngale diine di sonn guddi ak bëccëg waa kër sëñ Abdou Khadir ngi foofu lu ñu man ñi ngi koy def ah waa kër sëñ Ibrahima Mbacke ngi foofu lu ñu ngi koy def waa kër sëñ foofu lu ñu mën ngi koy def ah, ci lu baax ak rafetal ak jiima defar waa daara xuddos googu luñ mën ñu ngi koy def ci jiim jiima defar ah Cheikh Thiam doon nekk ci Amérique di saaga di saaga di wax lu ko neex di xas waa Touba ba mu neex ko mu dagg ca laa nga yëg dikk moom mi fa nekki lu may lu mais sama waay nañ des seetal mbir mi bu fekkee nag ak Cheikh dañ koy am ci xamadi kat man danaa génn réew mi saaga maa dàq saaga ndey ñëpp ndax ndax boog muñ ngeen jiital fan la loolu tege ci ban cause politique ngeen ko jiitale kan moo nekk ci ginnaawam xale yi ku ci nekk bitim réew di coow di coow di coow di coow di coow man mii di wax ak yéen man nee naa leen man indi nañu ma trente cinq millions fii sama kër damaa bañ ne leen dem de man ut man ba may wax waxuma pour may teg nit ñi raas déedéet soxlawuma ko bëgguma ci pel bëgguma ci dara damay wax rek ngir yàlla gi yonent bi Sëriñ Tuubaa te yi may wax jëruñ kenn di ma jiital ci dara waaw dara dañ ma ta jiital di ma takkali ndombo ci njàngale mi may jàngale ndax li tax kenn waruma cee takkal ak mooy njàngale mi dafa am pay cheikh cam mii nag la mu nekkoon yàlla daa war a lakk bonam ba mu tal fu dëglu naram ba mu tal tàlli ñaret la ko yalla doon xaare yowal xiyam bu bëgg dikk sëlëm leen ko ku làmmeñe mu ko mbelli mbelli ngeen ne da ngeen koy ngeen da ngeen koy jiital tuba mu cheikh tam do fa tak dara ah xara cheikh gi fekk deena waye fekk ma ngi dul ku la da na ko dégg de c'est bon nak bu yebo yeen ñëpp ngeen nenn seen der yi dina ñëk mel ngaan dara ngeen mu mënalul nak cheikh tam du nekk ci amerique di leen xassaka saga ba jige fa ñibisi ngeen takal ko ngombo ma xass leen ci lolu ngeen duma ken ñi mu ma duma bu yeboon na ngeen préparé Cheikh moom du fa takk genn ak ndoom ba guddul guddul tuub daal ñu jéggal ko jeex na mu dellu la lam doon def ñaw yi ab ñaw mbaa lu muy def mu def ko te ambassade dina ko baax ambassade xat sëñ Tuubaa soo ko soo ko sa bopp boo demee bay tuub da ngay bàyyi ambassade jàkk mbaaxaan Abdul Xafour la tuddoon ba mu tuubee Abdul Xafour lañ ko tuddee ba mu tuubee Cheikh nag mu ne su ko soppi Cheikh ndax Cheikh lu baax la waaye ambassade jim ci yokk na ko dili complètement bu ko bu mu ko waxee ti fenn te bu ko kenn tuddee di ci àddina waaw fekk Cheikh Thiam a ngi naan Cheikh Thiam ambassadeur mu ngi ñuy saaga ndax la mu daan wax di nu saaga ma ngi koy wax ba léegi kon saaga waa ca ginnaaw da koo nëbb ca xel ma mais xel maa nga ca ba léegi picc nga ca kaw mais xel maa ngi ci suuf da ngaa demoon bitim réew dafa man nga fa dee bu nekk foofu ne lu la neex ngay wax dem ba nga bëgg a dikkaat ci jàpp mais bismillah yow ak sa morooma ci yem. ku dem di ku dem ca biti di xas waa Sénégal ak saaga ak tànc ba mu neex la nga dikk yoloos yoloos dikk ne da ngay tuub waa tuubal nag rek te ne xiim waaye nag tuub ba noppi naan maay ambassadeur rek man maa jiite léeg maa jiital la ak dañ may jiite lii ana yan waane ñoo nekk Touba bëgg a jiital seex Thiam kan mooy waane wi ci biir Touba bëgg a jiital Cheikh Thiam Cheikh Thiam ku koy jiital ci ban cause nga koy jiital ak lan buy bëri ci lan lay bëri lan ci lay bëri lan ngeen may wax ne ci la Cheikh Thiam di bëre Khalid ibn Walid ab saay-saay la woon boo xam ne danoon xeex yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu tuubee da ne pat nekk ca liggéey yonent bi nekk ca liggéeyam yonent bi ba yonent bi ci boppam ne ko sayfullaahil masluul Cheikh Thiam bëgg a wax lu ko neex ci yoonu Sëriñ Tuubaa tur ba mu dàkkentaloon boppam di ko tiitaroo di ko bàkkoo di di di dagg suñuy xol Cheikh Thiam fu ma sa wax ne Cheikh Thiam ambassadeur la mu say teg nopp du ko dégg mu dikk mu dikk naa man Cheikh Thiam ambassadeur ku la ambassade yow ba ba lan ngay liggéeyal Sëñ Tuubaa loo ko liggéeyal foofu noonu yow de saaga Sëñ Tuubaa xas ko nga nekkee ba def ci sa bopp ambassadeur nga ñëw di tuub indi indiwaat turu ambassadeur yow nga amee woon tur moom day faral waaw te doo fi jiite dara ba daray bonoo jeex loolu moom dañ ko wax ba mu leer ambassadeur ji di nga ko bàyyi dootoo ko waxati ndax bi nga ko daan wax la ngi doon xas di nga ko bàyyi dootoo ko waxati ci salaam mañ te bu ko kenn waxati loolu mooy première tomb bi ñu lay mën a jéggale waaw bàkk bi nga doon bàkkoo bi nga ñuy duma da nga koy denc ndax bi nga ñuy xas ak saaga ba ambassadeur nga doon bàkkoo kon fekk yaa ngi wax ambassadeur yaa ngi ñuy fàttali li nga ñu doon wax Cheikh cam kortet mbaa mu dagg geen Cheikh Thiam kortet mbaa mu dagg geen pas ambassadeur pas leneen pas consulat pas ambassadeur yi ñu ngi ci Amérique xam nga ko bu bu dee ci wàllu administration boo noon ambassadeur Macky Sall la nga kon mu fekk dafa daaj ci kaso bi doo ambassade ci administration doo ambassade ci ci ci diine doo ambassade ci yoonu murid ambassade ci xaste ak saage ak tàññaate ak tooñ ga nekkoon kon sa ambassadeur xas ak tàññaate ak tooñ kooku Cheikh da nga koy bàyyi ba noppi lu ñuy wax ñu dara koo wax en tant que Cheikh Thiam a ngi tuddee boppam ambassadeur bu ko kenn nangul tuub na deñ na tur wi ba noppi ku la fal ambassadeur ba leen doon saaga ambassadeur bu leen don khas ma ne sa cheikh ji sa bayit rewon sa xarum tuddu da nga yam da nga lem sa geen diju ci man ma la koy wax deug nga di deg da nga dëkkoon seigne touba ne da ngay bëreeg mom seigne touba na birasu man baara man yu barisul muntaqimal baari saman suñ bi nga xam wara asri la wax la fi yadi wa min malik al qada bil anhi sima musawil islami fi a fa man aba mukusi fi dunya usil ma maal jasi yo xamantene di nga trox di nga ne tot dox sin bamba wax xam nak say man aba mukusi fi dunya util la ken dula jox tru tru ma gna la mutut cheikh mu tout lañ la wara wax cheikh mu sem parlement nga sin tuba kep ko songo xare fa muju trox waaye sonkub suñ tubaab xale wax lu jiital loolu moom du fi amee mais boo sax ngeen bañ koo xalaat day na bàyyi ambassade googu mu nekkoon ci àll ba di saaga suñ tubaab na bàyyi ambassade gi moom mooy sama première tomb loolu laa njëkk wax ne ko sax càmpay na bàyyi ambassade gi mu teg ko fële si noppee mu dikk tuub yem ci képp buy liggéeyaate Amérique mu dem foofu di ñaw ay parka njaxase ma ka ñëwoon ay ay ay lam nekkoon mu nekk ci yaa ngi dégg waaye lu muy def mbaa lu muy dindi mbaa ñu ko jiital loolu moom du fi amee xanaa ñi ko xanaa xanaa ñoom dañoo dof Touba dafa am borom Touba xalif général mooy moo élif Touba ku fay nekk ab leader mbaañ di la fa samp molay lay samp te samp samp nañ ko ba noppi ña fa samp seen bopp ci wàllu politique dañ koo samp ci ab yar

Bagiretu. Mais sernoɗo combat bobu ne dañ na ambassade ji dañ ndax bi nga tuddee sa bop ambassade sernoɗo combat la woon sernoɗo combat avec qui avec seigne bamba xaadimu rasoul so demee ba léegi nga sukuram kay ne djegluna naa mais sernoɗo combat googu da koy dindi di dil sa tour bi nga amé won bi nga bi bi nga nuy mbélé mbelengaan sa adresse biñ la doon xamé sa mandarga mom dafa war a dañ té bu lolu jallé do jité sax golo gu dëkk Touba xaji Touba sax du len jité muuse Touba la sax len jité xana ñu dañu ñak fay kon yow kon sa ngay du jeex di ah baxna man dem na mbok yi ñii ngi nek etali ñi ngi nek Amérique xamna leen bu baax ay doomi nek ay doomi bàjjan su ngeen di takkal Cheikh Thiam garaat mën leen dagge leen saaga ndey wa Touba ndax bu ngeen ñewé jitu kom ñep ci lan nit ñi liggéey suñu Touba ba seen xottu ba ba na xottu xottural ah kenn yëkkatiwu leen ken jiitalu leen ci dara té sax ñi doomi suñ Touba di sëtam nga ne ci Amérique gogu di xass suñ Touba ka tañ ba noppi ñibbi ñi jiital la fan lañ mën a bàyyi sax Moustapha Mbacké Gaynde Fatma mi ji woote woon Bamba dey jiite la yow Cheikh Thiam waaye xam nga ne loolu da ngay géntuwaay te ñu ngi koy wax ñu di ko gëm ñooñu seen bopp yi gópp ci ne ñooñu seen bopp yi ay yuru mbaam xuux la ñere waaye yuruñu ay yuru nit waaye loolu moom du mën a nekk doo jiite dara fi ba te sa ambassade jooju nga tudde woon sa bopp ba ngay ñi seen bi da koy dindi ci sa tur man loolu laa gis keneen ku gis leneen yaa xam waaye sax gi moom loolu la gis wasalaamaaleykum wa